am na ñaari téere yu génn benn le risque qu'on appelle prière. benn baa la pureté dangereuse yañ ca traité yonent bi wax na ko ñun mat na léegi fukki siècle ak ñeent wante ñi defar téere yooyu defe nañ ni ñoo téegal bukki bi waaw xale yu ma bare ci ñoom cofeel la sax ndax dañu bëgg xam-xam te duñu noppalu fu ñu dégg guerre dem fa soit ñu dugg ci croix rouge ñu dugg ci croissant rouge soit ñu dugg ci ONG yi dañu sawar xam naa ci biir cawarte yi booleeg seen xam ak yitte tax ñu risque qu'on appelle prière dana tax ñu naw leen pureté dangereuse dana tax ñu naw leen or bi ci yonent bi waxee xeetam ba léegi fukki siècle la am na sax ñu commencé di leen tontu man dama leen di encourager wax dëgg yàlla daañu fi ñëw sax ndax it ñoom ñu ngi xalaat ay mouvement yu ñu bëgg def waaye bu dee ñun njabootu yonent bi dañuy xam ni noo leen ci jiitu xam nga cellate cellate guy rey nit yàlla guy rey nit moom la tudde téere bi ñu ni naka la cellate di reye nit foofu la affaire ba nekk foofu la affaire ba nekk te fekk yonent bi nee na wal muxlisuuna ala xata waaw wal muxlisuuna ala xata dund ci yépp ci kaw volcan la ñu nekk xamuñu kañ explosé والمخلصون على خطر الناس كلهم هلكة إلا العالمون والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون والمخلصون على خطر yàlla ne doomu aadama yépp daañu alko euh, yonent bee ko wax ci lam ñu ko jële ci boromam nee na doomu aadama yépp daañu alko lu dul ñi xam ne ma ñi jàng ci téere wala ñi jàng ci école dama ni ñi xam ne Euh, nee na ñi jàng ñi xam ne ñëppit daañu alko ñi xam ne ñëpp dañu alko nee lu dul ña nga xam ne xàmme ga def nañ ko programme dund ca nee ña ko def programme dund ca daañu alko lu dul ña ko tudde yàlla nee na ko tudde yàlla na leen wóor ni ci kaw volcan lañu nekk waaw volcan mooy montagne yi safara nekk ci biir te xamaguloo këñ la génn moom la arab yi tudde burkaan xawma ma arab yee ko sàcc ci tubaab yi wala tubaab yee ko sàcc ci arab yi waaye fii volcan la fi tudd fële burkan la fa tudd ah bu ngeen jógee seet ko ba xam gis nga wal muxlisuuna ala xatar ala xatarin azim wallahi ñoom nag nee ñu élément de base bi tax ñu def mouvement bi mooy xalaatkat bu ñu wax Valérie dafa wax ni lien social lu fragile la lu fragile la boo ko seetee ci diggante croix rouge yeeg croissant rouge yeeg ONG yi nga gis yenn état yi di jéema a dugg ci biir di leen defloo ay politique politicienne da ngay gis yàqu-yàqu bi moo jóg ndax sell te ga sell te biti rek lay doon waaye biir ba am na état booy doxal soxlaam moo indi musiba croix rouge yi moo indi musiba croissant rouge yi moo indi musiba ONG yu bare parce que ku ci ne am na ku ni muq mu xaaral ci biir néegam te moom ngay doxal soxlaam waaw ma te doxul Mm-hmm. gis nga lien social sax fragilité am weddi wuñu ko mais mosu fi jóg du càggi nit Valérie rek moo ko wax yonent bi wax na ko te bosam a gën a garaaw parce que moom waxul lien social ñun buum gi ñu takk ci alxuraan la wax ni lu fragile la kooku c'est beaucoup plus grave loo tax mu ni yonent bi wax ni na ngeen miinal seen bopp alquran te ngeen bàyyi ko moom it mu miin leen ndax maa ngi leen di yëgal ni rëccam dafa gaaw dafa rëcc mu ni rëccam gën na gaaw rëccu kéwél boo doon rëbb jam ko jam bu ko reyul ca fekk yeewuñu ko nee namu na mu gaawe ci jóge ci sa loxo dem yoonam nee noonu la ci jóge ci dënnu ci gëm yàlla dem yoonam waaw kon lien yëpp fragile ñu digganteeg yàlla ñu digganteeg société bi lien yi ci dox yëpp yu fragile la moo tax ku nekkul ku vigilant àdduna tukki xamuloo alxuraan a fi gën gaaw a fëtt boo ko bàyyee at mu dem yoonam dafay fët dafay fët ak it rumge rumge rumge waaw rumge runge xam nga mooy lan aaya yi niroo te bokk ñu ba topp ca ñoom boobu la alxuraan bi tànk ñëpp waaw boo ci géejee at rek da ngay runge runge waaw da ngay ruta min sirri alwaswaasi alxanaasi alladi yadul yatima waaw seetal loolu min sharri alwaswaasi alxanaasi alladi yuwaswisu moo ca topp waaye ilimaan ji dafa tiit ni alladi yadoo al yatiima moo tax alxuraan foog nga miinal ko sa bopp mu miinal la boppam boo ko deful rekk buum gi dox sa digganteeg yàlla dafa dox waaw ndax dafay fët te moom rek moo la yeew ci yàlla fi nekk wallaay sunu mag jëli ci Tiwaawan nen ne mbay xaaj nen ne mbay yal yàlla yërëm ko nee na dama dem rek Cees ca réunion eh, chambre de commerce mu tas nag timis jot léegi ñu ni ana ko jóge Tiwaawan ma ni man ñu ni kon jiiteel na may itam wax dëgg yàlla ba bëgg wane sama bopp nde julli timit daa nekke ay xulwaa ay yeneen inaate naakal mu ni ma yooyu lañ ci jàng ma ni ko waaw waaw mu ni ma mën nag aw ma lu may def lu dul dem jàngi wa samay wa taarix te ne ci géej ne ñépp a topp ci sama gannaaw te ne ñépp a topp ci sama gannaaw ma ni wa samaayi wa taarixi wa ma adreeka ma taarixu najmu saaqibu in kullu nafsin lama alayha aafitun nee na genn wàllu nit ñi ni xaafisun nee na genn wàll ki ci des ni subhaanalaay subhaanalaay nee na ma ni lama alayha xaafisun nee nañu ni xaafisun xaafisun ne ña ca def ni subhaanallaay subhaanallaay ne duut cuun ci sama gannaaw duut cuun ni ma fal yan suru nee na ba ñu jullee ba noppi ma woo ko mu ñëw ma ne ko waaye yow kenn du wax fal yan suru fal yan suri la ñuy wax nee na mu ni ma waaw yow boo jotee ci sama fal yan suru ci yàlla ni bi ma ciy laata jot sonn naa coono boo xam ni mënuma la ko natt wallaay ndeysaan